Música mbokki internet yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne bi di limametti.com tey nag suñu actualité du jour nekkoon ci nga xamante ne moo di Bamba Fall nekk maire medina ki nga xamante ne moo di président de la République du Sénégal Macky Sall daal dina koy fal ministre des conseils ñu waa Limametti na dañ la waajal ci terrain bi laaj askan bi naka lañ ko gisee. d' abord ministre conseiller si moment bi sens bi la xamul on n'a pas de premier ministre. et les ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo xam dara ci affaire constitution nee le gouvernement actuel est même illégal wóoruma nag parce que du ma constitutionnaliste mais ak lu mën a am Bamba Fall mu dem si Macky man parce que du ma xale yàgg naa xool parcours politicien yi te Bamba Fall gisoon naa ne cheminement am il allait tout droit il allait tout droit vers le pouvoir parce que bi ñu xamee ne Khalifa Sall am ay problème Bamba Fall a fait des appels du pied à Macky Sall à plusieurs reprises. Peut-être que ce n'était pas opportun pour Macky Sall pour Mouwoko, mais Macky Sall, dès qu'il a compris que Bamba Fall a un certain gain politique sur le local, Macky Sall, euh, comme d'habitude, comme ni mu defoon Idriss Seck comme ni muy paree def il def ko Bamba Fall Bamba Fall nous ko mais Bamba Fall du gagné dara dara dara c'est opération bi parce que képp ko def en général da ngay phagocyté sa regroupement sa parti wala ak loo mën a yor si mbooloo da nga koy ñàkk parce que nit ñi tollootuñu fu ñuy suivre façon yooyu le waaw man de comme ci askan bi laa bokk moom mënuma kaa résumer lu du ñàkk ngor rek quoi waaw loolu laa ko mën a wooyee ndax euh, fu ñu toll nii politique dañ cee war def moral ndax moom tey bu ko nit ñi xamee population Médina moo tax ñu xam ko bu ko gars yi joxee seen confiance ba vootalaat ko def ko maire mu jëlaat loolu dem tay la ji ko mënuma ko wees lu ñàkk ngor ak moral.

te boo sagantul sax mandaam bi ma am nii à la municipalité am ko à la mairie de de de Médina gars yi ko tegal ay ndëgg sërëx parce que nag gor gor la waxuma nag ne du gor waaye nag dafa am ñoo xam ne ñi fi def fi jaam yëpp yàlla woon na leen ko. waa ci la ne woon ci lan d'ailleurs sax ci bannière parti boobu la demee élection nii moom foog naa ne moom waratul woon a amati lu mu prouvé. ndax euh, élection 2014 Macky Sall boole nag ak ñu bari mu duma leen Medina. toolootuñu nag fu nit ñi naxe nit ñi naan waaw sëriñ bi nii sëriñ ba nële dugg si lii génn si lële léegi nit ñi passé nañ foofu nit ñi paase nañ foofu ma xam ma xam ne rek Macky Sall li muy def nii def na ko keneen ku dul Bamba Fall ñu ëpp doole Bamba Fall. Bamfal, lan la bamfal ministre conseil ça veut dire quoi. mbokk yi ñoo ko gisandoo dégg nañ suñu micro askan wax nañ ci seen xalaat ci li nga xamante daal nañ koy fal kii di Bamba Fall maire medina bu ko fee nag dañ leen joxaat dig daje ba ñu yoon ak yeneen actualité fi ci biir li mo metti di lay wax nak bu leen faté abonné ci page bi ngeen bésaale ko liste notification bu leen permettre ngeen mëna am information fi ngeen mëna tollu